ci waxtu wi saa su jotee ci seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 mooy le rendez-vous du donner du recevoir à chaque fois ñu dalal ci ñoo xam te ne nii abilité nañ ngir waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi moo tax tey ji ñu dalal kii di nga xamante ni ci kër gi la bokk ah Mass Mboup nekk journaliste waaye nag tey ji ah, mu nekk koo xamante ne ni mu ngi bokk ci front ah, pour la défense de la démocratie di FDD ah di kuréel goo xamante ne ni li ko tax a jóg du lenn lu dul dooleel démocratie fii ci réew bu Sénégal mu ëmb nag ay ah, force yëpp journaliste chroniqueur euh, politique euh, société civile bref tout le monde euh, Mass Mboup ma di la nuyu baax baax. Jibi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. Hmm, di la jox sa wàccuwaay. jaajëf waay euh, di nuyu sénégale yi ñuy suivre. Hmm. Ah, mais du nuyu aussi euh, internautes yi nga xamante ne euh, ñooy suivre Sénégal 7. Hmm. di rafetlu aussi seen liggéey sur le terrain. jërëjëf waay parce que aussi man bokk na ci estime bi ma am ci Sénégal 7. mooy événement bu am. vous les premiers sur le terrain. merci beaucoup waay. même guddi. j'ai vu guddi keroog bi ñu naan Ousmane Sonko génn génnul. mais journaliste yi Sénégal c' était la njëkk a gis ñu taxaw buntu kër Ousmane Sonko <laughs> naan noo oto bi gaare nag yooyu mais c' bien xam nga xam nga xam nga le droit à l' information. askan wi ko la bu ñu demee ba télé ñu tënkuñu. loolu dëgg la amatuñu fitu wax. loolu dëgg la la terre. et puis c' est la la gis nga ji bi li may wax <laughs> nii c' est la vérité. Mhm. yëpp gisoo benn télé léegi am fitu mhm. yi nga xamante ne ñoom la ñu kaas leen siis ak ñaane mais ñoom ñooy dem sur le terrain. daa am lu leen ñoo yoon askanu Sénégal li li xew. kon hmm. liggéey boobu moom leen ci. jaajëf en tout cas euh, sa ñàkk ki ñaan rek moo tax nga defee noonu waaye jërëjëf merci beaucoup en tout cas Mass Mboup waaye yéen itam yéen ñi ñuy suivre ah, merci beaucoup de votre fidélité renouvelée à Sénégal 7 woy leen di def ni ngeen ko daan defee questions yi suggestions yi critiques yi contributions yi lépp na ñëw parce que actualité rek la ñuy waxtaanee ah, ñëpp a ci mën a euh, ñëpp a ci xaj actualité bi li ci gën a fës bokk na ci euh, tey ji ñu ne jour journée ville morte. Mhm. FDD bokk ci ñi ko décrété. waaw xam nga journée ville morte euh, waa aar suñu élection ñoo ko ñoo ko décrété. Ah, aar suñu élection aar suñu élection. Mhm. FDD ñëw teg ko loxo. FDD euh, jàpp nañ lépp luy aar suñu élection di aar réew mi. Mhm. ñun ca li ñu bokk. dëgg la moo tax aussi. FDD mooy front pour la défense de la démocratie. de la euh, démocratie ngeen gis ci ñoom Mame Birame Wathie. ñoom Guy Marius Sagna mooy Maimouna Bousso Serigne Saliou ah, Gueye Serigne Saliou Gueye. Mhm. Ah, Cheikh Baara euh, Cheikh Baara Thior Maxu Mandela. Ah, ak euh, ñu bëri ñu bëri ñoo xamante ne tey jii Salma ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. ñoo xamante ne ñu ngi ci biir front boobu. Mhm. di ay sénégalais de toute corporation. Mm, euh, ñoom aussi dañu adhéré ci loolu. parce que vraiment jàpp naa ne Sénégal fi mu toll nii. chacun doit prendre ses responsabilités. loolu de dëgg. nga ji réew mi fi mu toll nii dafa mën ni sabar gu tas. réew mi dañ ko doon bàkkee vitrine de la démocratie yu fi yu temps Sénégal da ngay dégg ñu naan la investisseurs yi sax dañu amoon. Euh, estime mhm. ci Sénégal ci réew mi. dañ leen wax ne. Mhm. même suñu force de l'ordre yi. Mhm. dañu leen doon tàgg bu ñu waxee ñu ne non Sénégal exemple la ci Afrique. ci démocratie ci liberté. mais bu ñu demee ba Sénégal bokk ci les pays les plus reculés en matière de démocratie les pays les plus reculés en matière de liberté. nu ñu def ba egg si foofu. Hmm? Sénégal tàmbale ci euh, l' affaire Ousmane Sonko depuis 2012 sax laay wax mhm. depuis 2012 dañu gis euh, nguur gu falu bëggul kenn manifester. Mhm. bëggul dégg dëgg nguur gu falu di jaay doole askanam mhm. nguur gu falu lum ñu woon yëpp defu ko nguur gu falu ta tey jii taxaw jël askan wi def leen ennemi nguur gu taxaw tey jii jël presse bi la leen nguur gu taxaw tey jii diviser l' opposition nguur gu taxaw tey jii au lieu liñ ko li taxoon ñu fal nguur. Hmm. li ne tey jii un président qui ne né après les indépendances mu président Macky Sall. Hmm. ñëpp amoon yaakaar ci président Macky Sall. Hmm. tout le monde yaa ngi fàtte rek bi ñu faloo Doudou Ndiaye eh, méng génn way woowu. Macky am na ndam. am na ndam ndeke boobu ndam loolu moo ñuy rey. bi Doudou Ndiaye di di way. ah xan lan na ndax ab way bi nu mu demee sax oh. naan Macky am na ndam man mënu maa way non oh, waykat nga jibi yow jibi waykat nga musuma mën a way non waykat nga yow da nga may nuroo ay may ndeer sax <laughs> xam nga bi muy way <laughs> way boobu naan ah, Sénégal am na ndam eh. hmm? boobu il fallait que vaille que vaille ñu ne Ablaye wax day dem mhm. président Macky Sall mhm. moom ku ko waxoon ne di nga falu du ko gëm mhm. kenn seentul woon tey ji président la de la Macky Sall nekk président de la République du Sénégal ah, circonstances yi deuxième tour sénégalais yi tabb ko ci cinquante six virgule et quelques pour cent. Ah, na ñu fi nekkoon boobu ñoo ko gënoon. absolument am poids dem si yàlla Ousmane Tanor mais ñoom ñëpp waaw mais yàlla mooy tànn njiitu réew encore une fois yàlla tabb ko mu doon njiitu réew Sénégal ñëpp jug na nañ ko jàppale. mu indil ñu yoonu yokkute. Mhm. yoonu yokkute boo xamante ne. di xoolal depuis 2012 à à à nos jours. Mhm. mais tey la dund gi gën a métti ji bi tey la sénégalais gën sonn. tey la prison yi gën a fees tey la ñaxtu yi gën a ëpp tey la coono sénégalais yi ci hôpital yi gën a metti boo feebaree doo faju éducation baa ngi nii di soox li ñu mën a bàkkoo un bilan matériel depuis 2012 à nos jours boo waxee ñu ne la non def nañ fi stade euh, Abdoulaye Wade mm-hmm. def nañ fi arène national pour lamb BRT bi pareegul terre bi yam jam ñaajo mm-hmm. mais depuis 2012 ñu dékk dékk la 44 quelques milliards 44 milliards je pense 1000 milliards. Mhm. de budget askan wi ba léegi dañu xiif. Mhm. askanu Sénégal ba léegi dañu sonn waaye nag xanaa nag ku kotti nit di ko dóor ay kurpeñ bu ko teree mu yuuxu. xam nga fi may jëm si important. li tax ma wax la loolu mooy. li tax tey jii amul journaliste amul euh, euh, chroniqueur. amul baykat amul sàmmkat amul nappkat ñëpp jóg doon benn say parce que président Macky Sall dafa laal lu mu moomul dafa laal yëfu askan wi bu njëkk bi il de des problèmes avec les partis de l'opposition museler l'opposition la defoon tëj seen làmmiñ ku wax mu jàpp tëj ku wax mu jàpp noot waaye bii dafa dugg ci loo xamante ne mbiru askanu Sénégal encore une fois il faut faire la part des choses président Macky Sall tooñu parti politique yooyu dafa tooñ les sénégalais dafa tooñ le peuple sénégalais daf leen xañ seen àq ak yelleef le droit de vote bi ñu amee woon. Mm-hmm. moo tax peuple bi booy xool tey jii boo duggee ci biir askanu Sénégal ñun ñuy dugg fu nekk mais dañ ko mere mm-hmm. askanu Sénégal dañ ko mere loolu tax nag ñun ñu gis na tey dañu war a réunir hmm, toutes les tranches de la population toutes les franges de la population banqaas bu nekk ñu mën leen dajale moo war tax ti front pour la défense de la démocratie juddu taxaw. boo gisee dañ ci gis ay journaliste gis ci ay ñu ne ñu maam biram wàcc ñoom société civile parti politique ñu ñëw pour dajale ñëpp autour de l'essentiel mooy nañu fexe pour le rétablissement de la démocratie pour le rétablissement de nos libertés parce que Sénégal li fi xew ëpp na jaay doole bi ëpp na lii fi xew dictateur dictature la mm-hmm. ki fi nekk dictateur la li mu bëgg lay imposer askanu Sénégal léegi nag loolu li liñ ko mën a fajee mooy lan li ñu ko mën a mën a faje mooy jël suñu droit la liberté ça se négocie pas hmm. mais ça s'arrache mais Mansour dëggal Mansour hmm. baal ma hmm, bu ñuy wax journée ville morte man maa ngi gis oto yeeg yi di daw <coughs> lan la dañ ci impliqué wul tout le monde ou bien journée ville morte bi xam nga euh, xam xam nga lan kii bi quoi journée ville morte euh, démb rek maa ngi euh, dalal sama plateau ki nga xamante ne mooy Malick Youm bokk ci aar sunu élection Hmm? ñoom dañu bokk dañuy regrouper ay syndicats yu bëri ay syndicats yu bëri la ñuy regrouper ñoom la ñu waxal ñi ne santé ñi ne éducation yu nankam te jàpp naa ne euh, Sénégalais yi sentir nañu tey jii ville morte bi. Hmm. am na nag ñoo xamante ne peut-être gisuñu njariñ boobu ñu nekk ci la ñu nekk. Hmm. loolu kenn mënu ko empêcher kenn surtout informel voilà kenn mënu ko informel ba genn parce que aussi nit ki jàpp ne bu xëyee dafa war a ut dépense te bu ko amee du añ. du reer. kooku munoo ko xaj mu jug mais tey ji boo demee santé service minimum la ñuy def urgence rek la ñuy def ñenn ñi mu ko boo demee éducation gis nga ni mu ni mu mel kon ça veut dire tey ji bu ñu demee ba euh, ville morte di am mhm. hmm? ay secteur xam nga expression bu garaaw la lii message bu garaaw la xam nga bu ñu demee ba secteurs yi di grève santé di grève éducation di grève lan moo waral loolu ñu ne noonu dañ ñoo xañ li ñu moom fi ñu jëm mais ci grève général la ñu jëm loolu loolu dëgg la parce que il y a eu des des écoles. non yoo xam te ne nii. certains de nos reporters ñu ngi ñuy wax nañu euh, pratiquement dañ ko sentir. foofu non mais enseignants yi ñu bëri xëy xëyuñu professeur xëy xëyuñu banque seen loxo. waaw loolu marché boo demee Sandaga mais cantine ñu bëri ñu jamono ji may wax ak yow ni suba ba léegi ak kenn jaayul. noonu lañ jaay nag. kon ce diir veut tey jii Sénégal yu bëri. day day wane nañ ñoom aussi dañu adhéré ci lii xew gis seen bopp ci xeex bi nga xamante ne tey jii aar sunu élection mi ngi koy xeex FDD mi ngi koy xeex euh, F24 mi ngi koy xeex te encore une fois ñenn ñi dañu war a bàyyi xel gis nga ñiy xeex nii bëgg Sénégal rek moo tax ñuy xeex ji bi kenn amul kenn jugul pour taal Sénégal encore une fois waaw parce que loolu c'est important gars yi préciser kenn jugul pour taal Sénégal démb gis nañu dialogue bi gars yi bu ñuy wax te itam yëpp yëpp day mel ni ñenn ñi dañ naan dafa am ñu am volonté manifeste pour taal réew mi waaye léegi jibi est-ce que teelee la lu ko <coughs> jibi Sénégal ñen ñoo ko moom añu ah, ñëpp la de hmm? kullu Sénégal mais Sénégal Macky Sall moo ko moom déedéet hmm? waa APR benn bokk yaakaar ñoo ko moom déedéet hmm? mais jibi xanaa ñun dëkkuñu Sénégal encore une fois man damay jékki-jékki livre bi Sidy Lamine bindoon l'étranger parmi les siens mhm. dafa mel ni ñun nous sommes des étrangers dans notre propre pays réewum Sénégal dafa mel ni ñun dañ fay tumu jibi ñan la ñu jàpp di tëj ci kaso yi du ñu ay sénégalais. Ah, ay sénégalais rek la ñuy tëj. jibi c'est des sénégalais. Mhm. comme yow comme man. maa ngi masawu suñu yaay maire Amidia. waaw dégg naa yaram bi dafa sutante trop. te di wax ne dégg naa ay mbokkam ñu wax démb. démb wax nañu. Coro Mbaxu Mandela dem na fa. waaw hmm, moom bokk ci FDD. Mhm. dem na fa wax nañu circonstances yi mu fekkee mère Amidia. Mhm. nañu libérer maire Amidia encore une fois balaa bëy way mbuus mm-hmm. parce que aussi presque deux ans mi ngi ci kaso bi ñu diñ ko force spéciale